l'intérieur génne na communiqué léegi ni nag euh, tere nañ ndaje fépp foo xamante ne nii mbooloo da ko fay mën a defee muy ci wàllu plage yi ci terrain de sport yi ci espace public yi ak ci salle de spectacle yi maanaam kon euh, tëgg meeg soirée yi day euh, dakk communiqué bi daal di ci dolli ni nag service public yi ak service privé yëpp itam dana ñu fa wax ni par force takk masque barab yi ñuy jaayee ci marché yi ak itam ci woto yi nga xam ne nit ñi dañ ci dugg ñaareelu wàgg bi tey jii ci suba nag la ko jiitu moom ministre de la santé wax ni Sénégal tàbbi na ci ndax eh, li ñuy calcul fi mu ne nii mm, bokk na ci daal liy firndeel ni fi mu ne Sénégal eh, mu ngi ci eh, diggub xeexaat jàngoroy coronavirus awa mbay. ñaareelu vague bi Sénégal agsi na ci ba noppi ministre de la santé ne li ñuy dund ci jamono ji wane na ko kon nañu ko xamee noonu ngir ñu teel see jug xeex ak moom Abdoulaye Diouf Sarr. deuxième vague boobu yaakaar naa ne fi ñu toll nii mën nañu réaliste wax nee ñu ngi si parce que mbir pour nga mën si jot bu baax da koy nangu commencé ko xeex lu tax ñu ne ñu ngi si mooy que ne quarante cinquième semaine bi dañu gis ne cas yi dafa commencé décollé wu jógee quinze vingt cinq ñu xëy rek mu yegg quarante trois dem ba soixante dix deuxième wàgg bi nag li tax dëgg-dëgg du am doole mooy askan wi ñoom ñu teel seen bopp lépp lu jëm ci fagaru bi respecter mesure barrière yi loolu képp la. taxawaay bi nag yaakaar naa ne co-construction moom lay njëkk a def. mooy ñun ñëpp ñu booloo. taxawalandoo ngi xamante ne moo tax ñuy xeex mbir mi. mooy respect mesure barrière yi. na ñëpp sol seen man mais aussi distanciation physique bi. ñu respecté ko. boo gisee li xew si transport en commun yi. nga gis aussi. li xew si yenn barab yi mais ñu ne dañu war a taxaw pour que fépp soo xamante ne mbooloo dafay daje rek ñu jël effort respecter distanciation bi bon dëgg encore une fois mesure barrière yooyu il faut ñu respecter ko aussi setal di raxas suñuy loxo ak saabu ak gel force de défense ak sécurité maanaam takk der yi ñoom itam dinañ gën a yokkaat seen liggéey jëm ci topp askan wi ngir ñu fexe ñoom itam ba sàmmonteeg lépp luy dogal jóge ci nguur gi te li ko tax a jóg mooy fagaru ci mbas mi yu mel il faut que ñu combiner ko ak surveillance des forces de défense et de sécurité parce que am na ñoo xamante ne ba léegi mën naa am ba gëmuñu ko wala seen coobaree moo leen yóbbu koo xamante ne dañu xalaat intérêt askan bi loolu nag force de défense de sécurité ñoo si war a taxaw. Sénégal ci waxtu wi tànnagul benn ñàkk jëm ci mbas mi waaye ministre de la santé ne direction prévention ñu ngi xool plan boo xamante ne bu ñu ko tegee ngir bu ñàkk bi ñëwee ñu xool ñan ñoo ci war a njëkk a jot ci askan wi.